waa maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat ca kanam moo taxawal programme bu am solo ngir ànd ak yéen ci màggalu tuubaa atum 2018 yëkkati lu toll ci fanweeri million ci koppari CFA ngir lu ëpp fukki quartier yoo xamante ne bii ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba mën a am ndox mu doy mu sell lu toll ci junniy làmp mu fës ko yéene samp ci biir dëkk bu sell bi di Touba. ngir mën a yokk leeraay bi ba mën a dolli itam lépp lu jëm ci wàllu kaaraange waaye mu am yeneen jéego yu am solo yoo xamante ne bi fës na ko yéene def muy fexe ba tàqaleeg dëkk bu sell bi di Touba lépp lu jëm ci wàllu microbe loolu nag tax na tuubaa ca kanam fës yéena pomp dëkk bu sell bi di Touba ak mbooleem li ko wër ngir fexe ba aaru ci lépp lu jëm ci wàllu microbe moo xam mu yooyu wala lépp loo xamante ne bi mën naa indi jàngoro ngir waajal màggalu Touba édition 2018 kanam fas yéene koo door gannaaw bu ñu jullee gee ba noppi lu mel nag tax na muy soññ mbooleem askan wi nekk ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir barab yi nga xamante ne bii dañu fa daan def ay lekk ñu mën koo tëj wala ñu bàyyi ko xel mboolem ñi nga xamante ne bii itam dañoo yor ay bassin seen bii kër wala bépp barab boo xamante ne bii ñam wu ñuy jëfandikoo lañ cay def ñu mën koo tëj ba ñu mën a def liggéey bi ba noppi. salaamaaleykum mbokk Touba maa ngi leen di nuyu di leen ziar may ko wér guddal ay fanam ba li mu bëgg a liggéeyal Cheikh Ahmed Bamba yàlla yombal ko ko tey ci guddi ba suba ba ginnaaw suba incha allahu rabi ñun waa service seen bu tuubaa ànd ko ak waa Touba ci kanam fas yéene na puudar dëkk bi donc bisu tey bii incha allahu rabi lépp loo xam ne ci biir rocade bi la bokk danañ ko puudar. tàmbale ko Kër Ñang ñëw ba Ndaamaatu bu ñu paree Ndaamaatu dinañ dem ba Guy Mbind dem Sura dem Touba Mosquée dem ci Madiyaana yi jëm Daaru Xuddoos dem Daaru Minam ñëw ba Xayra ñëw ba boori euh, poste de contrôle bu police boobu incha allahu rabi tey loolu la ñuy def bu subaa nag dinañ génn rocade bi dem côté Madiana 1 Madiana 2 dinañ dem incha allah ba jannatu dugg biir umu xora Cham dinañ dem ba Daaru Marnaan dinañ dem ba Ndindi incha allahu rabi dinañ dem ba Daaru Xuros ci ginnaaw booru hôpital jéemul yooyu yëpp incha allah dinañ ko def bu subaa bëgg nañ daal ci ñetti fan yi Touba gi yëpp dinañ ko puudar ànd kook waa Touba ci kanam loolu nag dinañ ko commencé bu minuit jotee ñu bëgg nag nit ñi vraiment bu minuit jotee nañu dugg seen i kër dugg seeni néeg ñam yi nañ ko denc. ba puudar bi wala naxulu njaan bi du mën a agsi ci ñam yi loolu daal ñu ngi koy ñaan doomu aadama yëpp ñi nga xam ne dañuy ngoonal di féexlu vraiment bu mu ñu jotee nañu dugg seen i néeg jéem a tëdd ndax bëgguñu vraiment ndox bi nga xam ne ni moom la ñuy def pour xeex yooyu mu laal leen wala puudar yu laal leen Touba ci kanam dañ leen di gërëm ji leen sant ndax euh, seen liggéey ci dëkk bi dafa naa ñëpp gis nañ ko ñu ngi koy rafetlu mu nekk loo xam ne nii yàlla na yàlla xeeb dolli mu nekk liggéey boo xam ne am na solo lool baax na ci Touba brigade d'hygiène nag jot na Touba am service d'hygiène boo xam ne dafay mucc ayib te am nañ yaakaar ci Touba ci kanam ñu tabax service d'hygiène boo xam ne fii ci Touba ku ko gis xam ne lii service d'hygiène la waaw loolu daal ñu ngi leen xaar ci loolu. Touba ca kanam. saa su ne muy dox ay jéego ngir suqali dëkk bu sell bi ni Touba wala lépp lu koy jëmale kanam ci màggaluk Touba édition 2018 programme bu am solo la ñu taxawal gannaaw fanweeri millions yi nga xamante ne bi yëkkati na ko dugal ko ci wàllu ndox mi ngir mbooleem sancaan yi nga xamante ne bi yoo doon am ay jafe-jafe ci ndox mi ñu mën koo saafara waaye lu mat junniy làmp yoo xamante ne bi fas nañ ko yéene dugal ci biir dëkk bu sell bi di Touba ngir dolli leeraay bi waaye yokk itam wàllu kaaraange gi ngir fas yéene pompe dëkk bu sell bi di Touba wàññi yooyu waaye aar leen itam ci lépp loo xamante ne bi jëm na ci jàngoro joo xamante ne bii mën na fee juddoo loolu nag tax na ñuy soññ mboolem askan wi képp ku yor bassin sa kër wala barab boo xamante ne bii wala ndab loo xamante ne bii defukaayu ñam la na ko sàmm ba ñu def liggéey bi ba noppi ñuy soññ mbooleem borom kër yi rawatina soxna yi ngir ñu bàyyi xel liggéey bi nga xamante ne bii namm nañu ko def liggéey boobu nag nii la ko fas yéene tërale ci mbedd yi rek la ñu ko yemale waaye donte dugguñ ci kër yi nag mboolem barab yi nga xamante ne bii baaxoo nañu cee def lu ñuy xewloo nañu ko waggar ba ñu mën a def liggéey bi ba noppi mbokk yi Touba ca kanam saa su ne rek muy dox ay jéego ngir lépp loo xamante ne bii dana tax liggéeyub sëriñ Touba bii rawatina luy suqali dëkk bu sell bi di Touba ñu mën ko def na mu waree ak Touba ca kanam yàlla nañu Serigne bi boole ñu bokk ci ñu jëmale dëkk bu sell bi di Touba ca kanam wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat